ndax mi ngi may signaler que ñaari école foofu yoo xam ne 1600 fa daje benn bi dañ koo tëj ndax géej gi daf ko nangu ah, euh, beneen bi dañu mujj dem euh, toxal yeneen euh, élèves yi ci école yooyu dañ juróom-ñeenti classe yoo xam ne tamit mu ngi fonctionner eh bien ñu mujj leen tas ci langue de barbarie bi yëpp oui très rapidement <laughs> yaa ëppale li nga wax ci ci bi nag mooy état Sénégal le gouvernement de Macky Sall affaire bël bii mm. da ko war a régler mm. c' est un problème très sérieux mm. honnêtement hein. Mm. ay affaire Macron ñëw na fi nangam néew na fi nañu génne les moyens ressources naturelles de ci réew mi lii c' est très dangereux et c' est grave mm. ne le président Macky Sall jël dossier bi au sérieux ay Macron koy def ñu génn xaaj defar bël bi bël bi ça devient fekk dafa nekk ñenn genre cimetière ci biir Saint-Louis ça devient très sérieux mais jël wax rek et puis ay village yoo xam ne dem na vraiment bël bi certes fi la ko fekk. defu ko oui mais quand même honnêtement man li ma gëm. lii moom mën nañu wax lii histoire bi nga xam ne mais mm-hmm. lii moom sa c'est du sérieux mm-hmm. lii sans rien ay licence de presse ak nangam mais lii dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war régler définitivement chaque jour ñu woote réunion def ay meeting woote na dañ ko def nangam teg ay pose première pierre ça ne règle pas le problème mm-hmm. ce problème-là c'est très sérieux dañ ko régler à Saint-Louis et je j'en suis sûr que lii bu ñu ko bu ñu ko réglé wul. néew ma politicien doon dugg ndar euh, gerte ndar de mais balaa Fadou di wax lu set. voilà lii la ñuy lii la ñuy lii ñuy wane nii mooy brèche bi brèche bi ñuy wax sànq ba léegi bël bi. mi ngi nii euh, xoolal ni xoolal ni bato yi xoolal xoolal nañ génne gaal xool ni gaal bii ñëwee xoolal. xoolal ni muy ñëwee nga xam sax dawul normalement c'est très dangereux xoolal xoolal. Mm, eh, xool nga ni muy ñëwee. <laughs> c'est très dangereux juste avant may terminer ak Macoumba. parce que première partie mais mais je pense que question bi ñu war a laaj suñu bopp aussi mooy mooy mooy qu'est-ce qui s'est passé. c'est quand même un problème de comportement mbir mi dafa am solo ah cest dire que yan genre wu nit la ñuy la ñuy xale la ñuy yar ci ci yenn quartier yi je pense bu ñu convoqué wu aussi c'est cette question de comportement ah dañuy passer à côté parce que à la limite ki nga xam ne moom moo jóge foofu sax mu ngi condamné affaire bi mooy que mooy que est-ce que ñii ñiy nekk ci ci yenn yenn zone yi moom mooy li ma doon wax sànq est-ce que ñi ngi intégré que ni dañu war a nekk ay nit yoo xam ne dañu am retenue dañu war a jàng dañu war a am dañ leen war a dimbale pour ñu am comportement bu baax parce que pourquoi loolu di xaw foofu te xewul feneen man loolu laay wax quoi cest di dire dans ce problème là il y un benn partie bu mag une grande partie boo xam ne mbirum comportement la cest ñoo xam ne pour ñoom armée sax bu taxawee si seen kanam faale wuñ ko. te loolu pourquoi pourquoi on n'a pas convoqué quand cette question là quoi. mais boobu lan laa lor loolu. balaa tàmbalee sax ba hmm. que Sénégal tey foog ñu toog toogaat xol mbir bi euh, doo stigmatiser zone. Mhm. mais la violence. toog di attaquer suñuy policiers yi ak gendarmes yi. Hmm. ça commence à devenir banal. Hmm. te loolu mënul continuer. bu ñu xoolee Libye lan moo fa xew. dans tous les pays là où ça ne va pas là mais c'est parce que il y a des services d'ordre l'armée jaratu fa dara mais nun xool fëpp c'est-à-dire dafa am loo xamante ne encore gis nga DER dafa am loo lu principal ak lu secondaire man le principal moom ma intéressé dañu nekk ci situation sous-régionale bi nekk ci benn cercle de feu moo ñu entouré ak ay nit yoo xamante ne tey il faut pas qu'il doute ça s'appelle la gendarmerie ça s'appelle la police ça s'appelle l'armée yàggu fii ñu téye militaires yi ñu leen di wax lu ne ah on les a attaqués on a attaqué la gendarmerie est-ce qu'on peut continuer comme ça est-ce que à chaque fois tey bu fekkente ne je suis pas d'accord ak euh, Pape Djibril Fall rek foog ma taal oto bi foog ma toj fii foog ma def lii foog ma def la ça ne peut pas continuer mm-hmm. faw nag que politiciens yi que les hommes politiques derrière aussi ñu bàyyi politique liggéeyal askan wi il y a trop de monde qui fait de politique pour pas grand chose pour pas grand résultat parce que boo xoolee bu baax affaire u pêche bi on le sentait venir fii lañ ko wax ça fait même pas un an fii lañ toog wax ko gis ko muy ñëw mu ñëw y a des faillites y a des faillites waa Gendar am na lu ñu def mais am na ay faillites et les faillites elles sont centrales elles sont au dans le pouvoir central foofu la ñu war a nettoyer parce que lii mënatul continuer dama leen ne que dans dix ans vingt ans dans une génération dans vingt cinq ans suñuy doom yi du ñu mun a dem Mauritanie pour nappi c'est quoi la solution. buñ mm-hmm. ko wax ok alors même hmm? on est déjà dans vingt cinq ans. non la Macoumba fi nga jógee dafa sori yaa ngi jógee ba Ndar. n'importe quoi euh, ñu ngi tàggoo ni ma la wax bu dee danga am doléance yoo xam ne danga ko bëgg a becc ci kanamu autorité yi. Hmm. vraiment ñu taxaw si. Hmm. bisimilah. ñu tàggoo waaw boo li nga bëgg a si kanamu autorité yi moom muy bël bi. bël bi moom defe naa gendar moom ku julli moom moom ngaa sëlmali mm. moom ngaa sëlmali si di ñaan pour état Sénégal defar Macky Sall nag dañ koy ñaanal si ayam moom bu ko defaree moom dana am way bu dul fay kon nag nu ngi ko si encouragé pour mu taxaw defar deuxième chose bi mooy fi may tëje mooy dafa am benn mouvement bu nekk Mauritanie muy mouvement jeune mauritanien ñoom dañu lëkkalook ñun ba gaal yi nuy jàpp si yoonu Mauritanie bi mm. ñu siy dimbali bu baax ban siy génne gaal yu bare gaal yoo xam presque dem na ay centaine de millions loolu nag mouvement boobu ki nga giitee muy Mbaye Babacar Diagne adjoint bi di Marème Tandia loolu moom ñun ñu ngi koy liggéey si loo xam ne état yëgu ko hmm. ñoom ñu ngi siy dimbali bu baax a baax. loolu nag ñu ngi leen siy sant leen si. am naa benn question bu ndaw est-ce que est-ce que am na ay gaal yu <laughs> jógee Mauritanie di di. non di xaaral xaaral di xaaral ba eggali. Hmm. di napp ci Sénégal. Hmm. non amul. amul du amul gaal goo jóge Mauritanie di nappe Sénégal. ah c'est normal. mais mais ñoom léegi bu njëkk a. daawuñu pes. mais léegi defar na nañu ay école formation pes léegi naar yi nu ngi pes. ñu ngi pes ba. ñun napp. kenn ki dañuy napp di teer ndar mais am na 15 pour cent yoo xam ne da ngay débarquer Mauritanie. xam nga lu ma jàpp. bon sa sa accent da nga am Mauritanie. waaw normal. wax mooy euh, histoire kenn xamul fu muy fu muy yem. Hmm. damay ñaan kilifa aada yi comme ni ko Bouba waxee. Hmm. yi nekk ci Sénégal ñu def déclaration dem Guet Ndar hmm. waxtaan ak. waa dëkk bi parce que avec ñëpp la met man dama mer may wax dëgg nga ah. mais ñu waxtaan ak waa dëkk bi ñu dal état Sénégal aussi vraiment jouer franc jeu jouer ak la population de Guet Ndar Guet Ndar mënul nekk benn grenier politique bu campagne jotee ñëpp da ko gañe Guet Ndar gañe nga Ndar ñëpp daw dem fa opposition au pouvoir digg fa digg fa digg fa wala soo fee nga daw aussi loolu mënul nekk ñëpp nga xool aux yeux sur de tout le monde géej gi ne nangu ay nit di leen def loo xam ne lu metti la. te bu bu dañu xëy mu jékki-jékki egg foo xam ne mun na sax disparaître loolu ndar gi wala mu def disparaître quartier bi ñëpp di seetaan bu tee ñu teg benn brique loolu rek solution bi de grâce man affaire licence de pêche sax taxumaa wax. mais affaire bël bi ma ça m'intéresse nañu régler problème mu bël bi avant soit trop tard ñu ay délégation yóbbu ay ceeb ak yeneen suukar loolu réglé problème bi na état Sénégal réglé bël bi et aussi kilifa kilifa aada yi waxtaan ak waa Guet Ndar wax leen ne leen violence du réglé dara. violence parce que am nga pouvoir am nga say carte yaay fal yaay folle mais tu as le pouvoir de dire non. Mhm. tu n'as pas besoin d'utiliser la violence. pour problème la euh, deuxième partie ñu dem ci cour des comptes.